voilà merci beaucoup euh, Grand Laye nous ngi lay nuyu euh, di remercier vraiment euh, di contente ci interview vraiment donc man la monsieur Mamadou Sarr nous gën ma xamee ci donc nous xamee aussi ci mouvement navetan du football donc actuellement nous donnons le président de l'AIC. voilà donc nous sommes là pour le cadre du tirage zone 8A pour Nawetaan 2023-2024 euh, de cette année-ci. Effectivement, bonne question Grand euh, interpellation yi donc euh, monsieur le maire Mengifi, sous-préfet donc Wa également Mengifi. donc discours vraiment riche vraiment en qualité donc vraiment le la remercier également donc le président Lothé Ndiaye ak équipe bi yëpp les délégués ñëpp ñu leen di remercier ci initiative yi ñu def ak euh, vraiment innovation yi innovation yi wax na ko sànq gars yi bi ñu daan tirage ñuy toog benn taatu garab rek donc ñu woo benn maire mu tiré donc ñu innover donc c'est une bonne chose c'est une chose à saluer également voilà. waaw encore bonne question lay bonne question euh, xam naa damay def li tubaab naan le fou du village le fou du village maanaam euh, li gars yi di wax ci suuf. Je naa ma wax ko ci kaw euh, maintenant, trop étant président donc surtout à pareil moment donc euh, ñu ne ci transfert joueurs yi donc day métti day métti trop trop trop trop trop et puis gars yi jàmbaar lañ dañuy ne ci ASC bi ne ci aussi avec les CD gars vraiment avec leurs moyens mooy doxal équipe yi mais doon na gën a rafet donc euh, en présence de la marraine du jour madame le maire vraiment nous... ñing koy def ñing koy def ci année yi passé gis nañ leen ñu def yu donc euh, accompagner avec des aides de maillot mais bëgg nañ encore mu gëna mu cette année-ci avec les subventions bëgg nañ aussi mu et puis mu ñu jot il ne rien ñu nous ba donc nga subvention c'est bien beau mais day gars bon dépensé nañ bay bëgg dé donc bu télon ñëw dal bu télon ñëw subvention bi donc dina doon lo xamné luy bax la ci ASC voilà. Euh, Grand Laye tey je pense que aujourd'hui tay bi ñuy ñëw ci suba donc mënon nañ ko indalé donc comme ça chaque IC bo paré rek ñu ne la ah li moy subvention bi nga xamné mairie mom la la yoreel donc doon na yombal gars trop mais ñom bon à leur niveau euh, madame le maire. Donc, euh, la, le connaissant, donc en collaboration avec le maire et Nino Andal, nous savons que inshallah. Exact, exact, exact, exact, grand lay. Xam nga dafa am lo xamné légui mën nañ né c'est la règle au niveau national. Tay on dirait que gaay dans leur fort intérieur dañu japp né néwétane ak violence ñoo and tout simplement parce que Ken bugul ñak gars yi dès l'instant que nga perdre benn match rek c'est la violence alors que je pense que nawetaan dafa war a nekk loo day rassembler mais pas lo xam day diviser donc nous devons ba sanctionner nous sanctionner équipe yépp

donc nous ngi tous supporters donc dirigeants joueurs donc ñuy woowaat yëpp ci causes. bi cause bi benn la donc nous avons ñun ñëpp mais dans la main donc dem foo kaf agré voilà yàlla may ñu ndam incha Inch'Allah. Sarr euh, président Aïssi beaucoup le 50 voilà merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci allez merci.